السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكين لن يباح لن زيار نيوات سن جانجلي تبارك الله النبي صلى الله عليه وسلم نينا مي حديث القدس مبايكو تي الله سبحانه وتعالى لا تزول قدم عبد يوم القيام حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتصبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به تبارك الله مكوي الله يا سبحانه وتعالى ني سما تانكو جام تبارك الله دو جوك سبام ميلم لول بنين بي لا تمي فك بنين بي ناكلات نينت عن عمره فيما افناه دنا كلات دوندم سي لن لوكو جيخلي مكوي فتبارك الله لو خامني نك الله دولا كاي لاج وارغا خول فتبارك الله في غاي تك سا تانك ndax ku ñëpp di xool dangay jaar fu leel te ñun ñëpp nag tabaarakallaahu umpalewuñu ci yàlla la ñu bàyyi ko waaye it fa la ñuy dellu te yàlla moom dafa njàccaar moom mi ngi toog rek dënneeru gars yi di def lu ne mu toog rek waaye nag xam na ne sàcc bu jur rëcc jarul yàq nelaw moo tax mu toog rek bàyyi nit ñi tabaarakallaahu ñuy def lu leen neex am na ñoo xam ne moom tabaarakallaahu ba ñu juddoo ba fi ñu toll su lu neex yàlla rek lañu def ñu ngi jaamu yàlla nekk ci li yàlla santaane kon bàyyil xel ne ëllëg yàlla dalay laaj si dund si lañ ko passé wa an yi fi ma ab ablaagu naa laaj sa ndaw tabaarakallaahu si lan nga ko paase am na ñoo xam ne seen ndaw yëpp caaxaan nañ ko dem ba nekk mag tabaarakallaahu bëgg ñëw si jàkk ji di dóorante di def naka sudul noonu mbokk yi ba nga nekkee ndaw fa la yàlla soxlaa da ngay jël sa ndaw jox subhaanahu wa taala boo nekkee mag mu téel la sam mag wa an maalihi min ayna iktasabu wa fi ma anfaqahu yàlla ne dina laaj sa alal nan nga ko fàggoo waaye ba nga ko fàggoo ba noppi fan nga ko def mbokk yi ni ñu góorgóorlu tabaarakallahu ni ñu utee alal nañ ci góorgóorlu muy lew waaye it buñ koy dépensé nañ ko dépensé fu lew foo xam ne neex na yàlla xam ne ëllëg bala yàlla neen foo defoon lii doo am allah lu nekk sa diina ji ak gaa yu baax yi nga xam ne yaa leen tegoon ci àdduna ñooñ laa jëloon sama alal di leen jàppale waaye nag wa an ilmihi ma daa amila bi naa leen laaj tabaarakallaahu yéen ñi amoon xam-xam seen xam-xam bi nga daan wax naan yàlla ne yonente bi ne ndax daan ngeen ko jëfe wala déet te yonente bi daan na ko wax yàlla musal ci xam-xam boo xam ne boroom du ko jëfe yàlla ci yàlla musal ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi mi ngi noonu insha allahu rabbi nii la rek ngeen bàyyi xel wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu